son appel est toujours la sénégalaise que vous avez parlé d'Ancien Bac, Alizé et autres. Nous, avons connu Alizé. Son appel, c'est bien le nom de l'entreprise qui distribue une marque commerciale. Et ça, je pense que c'est assez méconnu. On aura l'occasion, si l'opportunité de la rencontre se présente, à vous expliquer comment le groupe s'en appelle, qui fait la fierté du Sénégal, fait d'ailleurs la fierté de, tous les autres pays de Donc ça, je voudrais juste vous rassurer sur cette question. Sonatel est toujours l'entreprise sénégalaise que vous avez connue. Et nous sommes encore une fois disponibles à vous rencontrer. Hier, nous avons rencontré une fédération d'associations de consommateurs. Nous avons évoqué beaucoup de questions et, vous pouvez compter sur Sonatel pour tenir compte des remarques des consommateurs, le client qui est au centre de nos préoccupations. Et

et les offres complémentaires que nous avons lancées euh, récemment suite aux avec l'autorité de régulation. Nous avons également adressé d'autres cibles, et notamment une offre exceptionnelle dans cette période de pandémie. Merci cas, beaucoup. Hein. Et, euh, merci, merci. Merci. waaw dama doon wax ne monsieur dama doon dalal xelu monsieur Sané parce que sànq dafa waxaat ne ñoom dañu bëgg Sonatel souveraineté bi ñu doon gis ci Sonatel démb ak bërki démb notamment mu fàttali marque mobile bi ñu fi amoon Alizé mu amaat ma koy wax ne ma koy may dalal xelam rek ne ko ñu ñuy liggéey Sonatel ñu koy confirmer ne Sonatel société sénégalaise bi mu xamoon moo fi nekk ba léegi entreprise boo xamante ne ay sénégalais ñoo ko géré moom sax wax na ko ay sénégali ñoo ciy liggéey turu entreprise bi Sonatel la te li Sonatel di indi réew mi dépassé na fuuf li dem fenêtre Sonatel xam nga ne nekk na yeneen filiale sax d'ailleurs foofu yëpp ay DG Sénégal fierté Sénégal la nekk dans la sous-région également euh, xëj na dafa am euh, déficit de communication bu am entre peut-être ak ñun e ñun ñu bëralaat leen ne directeur général Sékou Dramé disponible na pour rencontrer leen pour wax si question wu yi nga xamante ne mooy objet wu lettre de protestation bi mu ma indi tey muy illimixé yi mais disponible na aussi directeur général ak directeur yëpp d'ailleurs pour waxtaan ci secteur économie numérique mu nekk secteur bu am solo ci économie loolu disponible nañ su quand saa yu leen euh, soxlawee ñu gis leen ñu gis leen d'ailleurs ñu ngi gis ay association yu bari démb rek gis nañ benn fédération bu association de consommateurs bu regroupé dix associations ñu waxtaan waxtaan bu yaatu ci si ak ci yeneen te ñun loolu dafa am solo parce que client bi bu ñu nee ñun dix millions de clients nañu am loolu mooy suñu fierté donc client bu ak ku munti doon moo xam ki nga xamante ne cinq cent wala mille lay consommer moo xam cent mille lay consommer ñun ñëpp lañ xale yemale si traitement bi ñu war a def si préoccupation ak réclamation au te am nañu ay processus interne yoo xam ne su koy firndeel xëy na ñu amee occasion daal ñu leen ko mën donc li ñu wax ñu dañu considérer que oui préoccupation client la ñu jàpp si mbiru Illimix yi ba léegi incompréhension am na ci puisque monsieur Sallé mi ngi fàttali sànq ne xëj na ñun Sonatel rek ñoo gis bés bi mais dinañu ko wan bu ñu yàlla mais ñu tase que ne effectivement li ñu sànni li ñu lancé comme forfait pour quatre-vingt-onze pour cent clients yi donc neuf millions et quelques de clients ay wàññite la ñu amélioré ko sax bu ñu waxtaanee autorité de régulation ba pare pour indi yeneen forfait yoo xamante ne dina adressé yeneen cible ba sax daal di lancé benn forfait exceptionnel si jamonoy Covid 19 bi boo xamante ne dina permettre aussi nit ñi am accès si internet mobile ak si ay euh, communication voix si loo xamante ne dafa yomb. que combat pour que Sénégal euh, Sonatel forat et que Sénégal retrouve souveraineté en matière de télécom du dafa am ci lu ma ko wékk ci li ma ko wékk nag mooy syndicat maison wu Orange ay ndaw ay sénégalais yu am xam-xam nekk ci orange nekk syndicat bi depuis 2015 ils sont venus nous voir bi état du Sénégal di waaj a renouveler contrat wu concession bi avec orange ci lañ ñu alerter sur ça ne orange la ñuy liggéey waaye ay doomu Sénégal lañu et que Sonatel c'est-à-dire suñu secteur u télécom échappé nañu parce que France Télécom à travers marque orange moom moo fort ñoom Medoune Kane ak ñeneen ak ñeneen et jusqu'aujourd'hui ñu ngi échanger ak ñoom ñuy ay ndawu Sénégal ay doomu Sénégal yu nekk biir Orange di xeex xeex boobu pour que Sénégal mu retrouver souveraineté am ci en matière de télécom donc ci loolu laa ko teg euh, leneen li nag mooy wii wax naa ko te dama koy waxaat mooy Orange ils ont fait des démos on a ici tout le Sénégal a suivi conférence de presse bi ñu defoon avec tous leurs experts pour essayer de nous démontrer que en fait dañu wàññi mais amul benn sénégalais bu nangu loolu. loolu moo waral tey suñuy tànk fii. Euh, ñun on est ouvert encore une fois ci waxtaan parce que li ñu intéressé rek mooy fexe ba préoccupation wu sénégalais yi seen clients yi c'est-à-dire njëg yi dellu ci njëg yi amoon avant le 22 juillet que Orange mu def ko pour man le meilleur acte à poser par Orange c'est pas de jouer dans du c'est pas de faire dans du dilatoire di am ay réunion yu dul jeex pour di jéem a euh, démontrer li nga xamante ni ñoom rek ñoo ko accepter ñoom rek ñoo ko gis te consommateurs yi du loolu lañ sentir seen poche le plus simple mais vraiment mooy que ñu delluwaat ci njëkk yu ñu doon appliqué avant au su 22 juillet bi donc loolu laa amoon lu may lu may